mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi jéggalu jur yi toog fii amuñu fi sax kàddu ndax ñoom li ñuy wax ñun ñoom moom la ñuy wax te ci ñoom lañ ko gën a yaakaare seen jur wu tedd wa Cheikh Seydi Wakar Si radiyallahu anhu dafa daan wax ni mbaax àgg na ci nga am ñaar maye benn téye benn waaye ki amul lu dul benn joxe ko kenn gënu laa baax sëñ Babacar si nee na ki am ñaar joxe benn ku baax la waaye ki amul lu dul benn joxe ko kenn gënu laa baax moo fi dajale bokk yi bokk yi li ñuy rumandaat ci suuf laay génne ci kaw li yi di ruumandaat ci suuf lañ ma wax ni ma nañ ko yëkkati dafa am koo xam ni bu defee benn dañ ko naan dimbali ñu nga def fukk ndax sa la am koo xam ni bu bëggee def fukk dañ ko naan déedéet benn ngay def wala déet uh-huh. fii nag bokk yi nga xam ni ñoo fi daje fii ku ne xam na ni grand donateur yi ñu koy tudde bu ñu waroon ñi fi alaaj malik am ci senegaal xajuñu ci saal bi ñi fi xalifa yi am xajuñu ci saal bi kon nag bu ñu tànnee ñun ñii parmi ñooñu ñëpp indi ñu fii bu ñu génnee benn nañ leen wax ni yokk leen ko def ko fukk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 yéen ñii sëñ Babacar ngeen dajal